bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu buur yàlla dolli nu ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu waaw ñu ngi ci waajtaay bi ni Porokhane lañ jóge depuis samedi ba léegi amoon ay jafe-jafe nag ci place maanaam mais yàlla dogal na daal place yi mujj na sotti mais laataa mu sotti xaw na métti lool war nañu yombal place yi nag jaaykat yi wax dëgg yàlla ndax son nañ te ay taalibay murid lañ ay dong lañ te lii dañ ciy teral suñu mbokk waaw client yi ñu ngi ñëw benn benn ndax ñu ngi doogalal nam xëyul Serigne tubaa moom dafa yaatu ndax maanaam boo dikkee ci bërëbu Serigne tubaa rek maanaam lépp jàppandi na ndax ñu ngi ci gis suñu bopp bu baax a baax a baax am na ci ñoo xamante ne du ñu luye kenn am na ci ñoo xamante ne nag dañuy ñëw di am ñu def ci suuf dagg place di ko joxe to amuñ ci ndigalu sëriñ bi daal yooyu dafay faral di am te ñëpp ci biir kër sëriñ bi la ñuy féete. Dakar lañ koy jëndee sànni ñeeri riitar bi yaa bi fa lañ koy jëndee muy pom banana muy pomme banana orange clémentine ananas ak poire ak raisin yëpp. Dakar lañ koy jëndee. mu ngi yëngu ndànk-ndànk waaye nag xam naa ne des na daal bu baax ndax xam naa ne gaañ am bari ñoo xam ne yegg seeguñu teewaguñu daal. Kazu bu jot bu ko sunu borom dogalee dinaa ñëw jaay si. waaw boo ko xoolee daal daanaa ko def ay at yu xawoon ci ginnaaw ay jamono motul tolloog ay 10 ans. ndax boo ko fekkee rek mën a lal ci jàmm toog ci jàmm di jaay ci jàmm rek sant yàlla lu des rek bénéfice la. ñu ci sant yàlla bu baax ñu ngi ci suturu bu baax a baax a baax. waaw di leen sant di leen gërëm rek. bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli ay maqaama yàlla bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu